bismillahi rahmani rahim uh, wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulullahi sayidina muhammadin wa ala alihi altayibin altahirin wasallam waa ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi lay delloo nuyu uh, sëñ Moussa uh, bi ñoo ngi lay delloo ay ndokkeel ci say xaddamaat yu tedd yi nga xam ne yaa ngi ci waxtu nekk yaa ngi xeeñtu liggéeyu Maolana Cheikh Ibrahima ci toppam di ko wesaare loolu ci liggéey yi gën a mag ci jamono ci tasaare mbaax ci tasaare ngëm yàlla tasaare xam-xam ci la bokk maa ngi ñaan yàlla mu yokk tawfiix ci yow ak kàttan defal ko waa Kossy TV yëpp ak mboolam ñi nekk sa ginnaaw maa ngi lay delloo nuyoo was wasalaam waaleykum salaam wa rahmatullah aywa léegi ngan gi ñoo ngi ciy sant yàlla di ci bég li ñuy dénk suñ bopp suñu yëg-yëg ñun mooy taalibe Cheikh Ibrahima yi ci Sénégal ñu gën a bàyyi xel àdduna biñ nekk xam liggéeyu Cheikh Ibrahima ni mu toll ci àdduna bi xam li ñuy xaar ci liggéey boobu ci tasaare daxwa Cheikh ci xam-xam ak ci njub ak xamne kuy tuddo Cheikh Ibrahima nek Sénégal di domam di talibem fo dem ci aduna dang fa fek la fa Cheikh Ibrahima jiwoon muy jebbi nga war fa auto Cheikh Ibrahima wala nek khalifa Cheikh Ibrahima fo dem comme nek ko gu bax gi nekke Cheikh mohammedul Mahi ci tukem bi aduna yeb gis li ci yalla feñal ci ay ngeenel ak ay teraanga lolou nak jàngat la ci kuy taalibe Baay rawatina ñi nga xam ne ay boroom ndigal lañ ci yoon wi ñu bàyyi seen xel ne looloo ngi seen kanam di leen xaar ñoo ngi ndokkeel sëriñ bi moom mi tukki woon di xalifa bi di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla yokku dëgëram yokku tawféexam tukki bi yàlla may ko ci yeneeni tukki ci yeneeni réew parce que Cheikh ma liggéeyam damay wax ne nit mënu koo xayma ci xel yaatug liggéeyam nit mënu ko xayma ba léegi nii am na kilifa yoo xam ne sax euh, liñ dund ak bàyyi ci at lu mu bëri bari bëri bëri bëri danañ egg foo xam ne di door a teg bët kayit gu baay bind wala ñuy door a daje ku baay defar koo xam ne mësuñ koo gis kon liggéey bu yaatoo noonu kum tegu ci sa loxo njub war na la xam-xam war na la. jàng na diine xam na ko mag la waliyu la doomi waliyu la qualité yi yàlla dajale ci moom yëpp war na mën a apporter àdduna ci xalaat yooyu ci xam-xamam ci ba yi ko yàlla may war na mën a apporter àdduna bi lu bëree bëree bari kon lii suñu warteef li bàyyi waxoon ne sëriñ bi ñàkk sens mooy sëriñ boo xam ne ay taalibeem duñ ko ñaanal yàlla ñun ñu bëril di ko ñaanal yàlla ngir yàlla dolli ko sutura yàlla dolli ko tawfiix ba li bàyyi rëddoon mu gën koo mën a continuer di ko doxal yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla defal ñu moytu bakkan bakkan mbiri bàyyi mbiri yàlla la mbir la ñeel yàlla baay wax na ne mën a fayda bi dafa taxaw ci mbir yàlla bëri na fu mu tudd fayda bi askan ko ci yàlla dégg nga mu ne mu ne fayda bi qaa'iman bi amrillah wax na feneen ne dégg nga ci fayda bi من وذلك الفيض من ربي ومن سأه حقيقة المصطفى الجالي أما لعن فيض بي تي يالا لبو لبو تي يالا من بمين يوفي defal nañ ko Cheikh Ibrahima ginnaaw Cheikh Ibrahima defal nañ ko Alxaaji Abdullah bi mu fi demee Mauritanie ginnaaw événement naar yi ci année 98 1998 mu dem Mauritanie gouvernement Mauritanie kontaan ci taxawaay bi Alxaaji Abdullah Al def ci événement yi fi amoon 1989 ñu sargal ko jox ko seen avion mu ñëw wàcc fële ci aérodrome bu Kaolack euh, defal nañ ko ko defal nañ ko Cheikh Ibrahima ay yooni yoon ci jamono mag ñi teeru nañ ko ci Gandiaye teeru nañ ko ci Medina li ngay jëf fan la toll xam tamit fi mu toll ci sunna bakkan bañ ci am wàll nga xam ne suñu sëriñ dafa liggéey liggéey li woon yàlla ci ay jaami yàlla yóbbu fa xam-xam dundalaat faydu ak oote baayam ci xolu ñooñu aad bi ñooñu am ci baay mu dem dundal ko jafe-jafe yam fa fekk ci ay utee lam ca mën mu saafaraal ko def ca lam ca mën ñoo ngi ñaan nag euh, yàlla may ko ci ndam parce que situation bu compliquée la jug la jugee dëkk ba marché bëri nañ ñoo ngi actualité bi gouvernement bi nga xamné ne junte militaire bi ko yor ak dégg toujours population ba ñoo ngay mars guerre civile amna na fa bu yag ba ba euh, pays ba divisé wu presque sudan sud de am ak euh, sudan bi nga xamné moy moy moy mooy asli bi aywa liggéey bu difficile non nak bu fa démé rencontrer xéet yi rencontrer organisation ya fa nek islamique yi ak organisation société civile yi ak gouvernement bi dañ koy ñaan lam fa ñaan ak lam dox yalla def ci def ci ndam mu am continuité ba jàmm ja continuer yàgg muqaddam bàyyi daal nañ teg njàngale baay njàngale baay ci lépp lu ñuy def baay wax na ci amul ci kaw bi fi mu nii li jullit soxla ci wàllu lu ñuy yób jëmee ci yàlla lu may danañ fekk baay moom nan la ko déggee te lépp yi bàyyi alxuraan la sunna yonante bi ak moom nan la déggee mbir yooyu te moom ni mu déggee mbir yooyu moo ñu doy ñun ci soobu bi ñu soobu ci yàlla lépp lu ñuy def li gën a gaaw daal taale bàyyi yëpp fonkante nekk benn mooy bala ngay jug xamal li ngay def fan la toll ci njàngale bàyyi nga gis sa morom ci baay loolu moom dafay yombal ci sama gis-gis xëy na keneen nag mën naa am bu gën a gaaw boobu mais man boobu laa gis <laughs> alhamdulilah waa kay macha allah asalaamaaleykum ñoo ngi leen di ndokkeel beneen yoon jërëjëf ñaan yi nga ñaanal xalifa bi ñaan yi nga ñaanal suma sang Mawlana Cheikh Mouhamadul Aqibu maa ngi wax amin ci ñaan yëpp macha allah jërëjëf jërëjëf bi teew salaamaaleykum wa rahmatullah